كالعلي المعط نيل وهميمة أهل العباء كما قد جاءنا الخبر مولاي وسلم على في الخلق كلهم سعد سعيد بن عوف في طلحة وأبو عبيدة وزبير سادات الغرراء وحمزة وكذا عباس سيدنا وليلى والحبر من زائل بالخيار والآل والصعب والأتباع خاطبة ما جن ليل دايا يوم نسهر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 nga fab burdu waxtaan waxtaan te may ma ma tëdd fii te bàyyi ma ma tëdd fii mu ne ma daal may naa la mu ne ma daal may naa la ñu ànd bu ñu demee ñu ànd bu ñu demee yow nga burdu yow nga burdu ma waxtaan ma waxtaan waa burdu na waa burdu na waxtaanal nag waxtaanal nag tabaarakallahu nag xalifa bi ne fa tabaarakallahu nag du bëggoon rek xelu taalibe yi gën a nee ndax comme bu yàgg ba tey gisuñu ko bés bu tey ñiy ñëw di bésam suñu ko gisul day jaxase seen xol nee moo taxoon ma ni ko daal da ngay soox rek mu ni ma man mënuma dara ma ni ko soo jógee yàlla ànd ak yow ملك الله دفع من بين جمي جمانو سرين بابا كرسي رضي الله عنه دامو دجيك موسيبيو موي سوخريك ديوي يالي وايا خمنا لي منو سي خمنا بو غناو تلجي da nga yebal Serigne Mansour ak Serigne Cheikh ñu demal la ca jumaa ji te yow nga tëdd mu ni ah dama koo sañ kon su ma gisee sama lan laa koy laaj moom kay wutal leen ma garab yu baax rek ma jooma soox dem nee ma dem ci docteur Silla booba moo fi nekk mu defal ko ordonnance ma dem jënd ko indi ma dem jënd ko indi ko wax ko bu nekk nañu koy jële waaw mënuma koo takk mu ne ah loolu mënuma koo takk xanaa yaay ñëw di ma ko jox xanaa yaay ñëw di ma ko jox guddi gàmm ga mu dem nee guddi gàmm ga mu dem ba ñu dellu ca fajar. ba mu dellu see ca fajar. muy summi mu sol di ma jox ma di ko wéttal ci porte-manteau bi. muy sol di ma ko jox ma di ko wéttal ci porte-manteau bi. man ko maa sibiru bi la ci biir gàmm. man ko maa sibiru bi la mu naa déedéet na. mu na. man daal dama dugg jumaa ji rek. man daal dama dugg jumaa rek. yëgatuma dara. yëgatuma dara. ndax yàlla la. ndax yàlla la. mun ma xanaa yàlla la. mun ma xanaa yàlla la. ak sa barke maam. ak sa barke maam. ma ne ko yow tam boo duggee sa incha allah sa jumaa bàyyi ji. nee ma ne xalifa bi yow tam incha allah boo duggee sa jumaay bàyyi ji. doo yëg dara ba ba ngay nokk. doo yëg dara ba ba ngay nokk. xalifa bi ne kon asalaamualeykum ko. nee ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. ndokkeel ci guddi. nee di leen ndokkeel ci guddi. di leen sant ci ñaan yi nag. nee di leen sant ci ñaan yi nag. fa tabaarakallahu yépp egsi na. yal na yàlla nu leen. fa tabaarakallah. fa tabaarakallah. ñu ngi sant bu baax. ñu ngi sant bu baax. di sant góor gi nga xam ne moo nu boole ci lii. di sant góor gi nga xam ne moo nu boole ci lii. ndax su am lekkee alom na ko gërëme coy. ndax lépp su na ko gërëme coy. bésu tey di di altine. bésu tey jii di altine. ñu yendu ci premier bour. ñu yendu ci premier bour. fas yéene gàmmu àjjuma. fas yéene gàmmu àjjuma. ah. ah. sama ñaar ña. nee sama ñaar ña. ma ni sama ñaar ña. ma ni sama ñaar ña. fii yow meeg lay la. fii yow meeg lay la. fii yow meeg lay la. I bá òkè nínú omi. بسمامنا ليل الحرب gammuɗen ɗiɗi gayde altine gammu ajjuma gammu ajjuma fi yawmi lisnayi ak laylat arobati nee sama maam nee na kaana ame na kaana ame na duxuulu ak duxuulu dugg Makka dugg Madina fii yawmi lisnayn kamaa kaana kamaa kaana naka la nekke xuruju naka la nekke xuruju génn Makka génn Makka fii yawmi lisnayn walistin baaw solo ga itam solo ci nee ci la jóge Makka. ci la àgg Madina. ca la àgg Madina. ca lañ la ñu xar xol ci la rañaan. ci la riñaan. ci la faatu. muy bésu tey jii. muy altine. moom la yendu na Mais mas nañoo laaj cheikh a, ko. lu tax sa ko altine. lu tax sa maam yonent ko Altini. ne fi ixtisaasihi yowma lisnayn. mu ne waaw. mu ne comme ahad. comme ahad. mooy kenn di yàlla. mooy kenn di yàlla. dimanche. dimanche. dimanche dimanche altimis. cheikh. muy muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diggante ahad mais diggante ahad ak lis nañ ak lis nañ dara doxu fa ahad mooy yàlla. ne al ahad mooy yàlla. di kenn. di kenn ñaareelam kan la. ñaareelam kan la. muy Muhammad. mooy Sayyiduna Muhammad. abaana min nuurihi. abaana min nuurihi. nuurun min an-nuuri qad awdahtu qad awdahtu hikaman tafiidu faydan ala al-axlaaq قد أودعته حكما تفيد فيضا على أخلاقي الله على أخلاقي الله ما في البرية من لم تسقيه كرما من نوره ربنا يا الله يا الله ne Seydil Hadji Malick yàlla na ko yàlla fayal. yàlla na yàlla yokk leeram. neen ah sum ku def ci li mu dem nee ku def ci li mu dem nga xam ni kii nga xam ni kii ah ëpp la xam nga maa fi bëri yëti nee xam nga maa fi bëri yëti man lam tasqihi karaman man lam tasqihi karaman من نوره من نوره ربنا يالله يالله كاين لا كفيري كاين لا كفيري وقد سقانا خالق العباد وقد سقانا خالق العباد ثمان مرات ثمان مرات من نور الهادي نور الهادي فاكهة الطلاب فاكهة الطلاب فلك مود الفريه فلك مود الفريه وقد سقانا خالق العباد مود الكون وقد سقانا خالق العباد موجود وقد سقانا خالق العباد ثمان مرات بنور الهادي موتخ ليه موتخ من بالله الذي لا اله الا هو am jom ku am jom xam ni kii xam ni kii muy Muhammad muy Seydina Muhammad sëñ bi xoolal sëñ bi xoolal rek sa toqantu mën nañ mais sa tokkant mën niyu cas leeru Muhammad cas rek ñu ne la cas leeru Seydina Muhammad ñeent fukki fan ñeent fukki fan ñeent fukki at. nee ñeent fukki fan ñeent fukki fan. cas leeru Muhammad. ñu ne la cas leeru Seydina Muhammad. nga mën ni xarit ni gën. nga mën ni xarit ni gën. cas leeru Muhammad. ñu ni cas leeru Muhammad. nga war a judd. nga war a judd. cas leeru Muhammad. ñu ne la cas leeru Muhammad. nga ni dara ni wee. nga ni dara ni wee. cas leeru Muhammad. ñu ne la cas leeru Muhammad. ما في البرية ما في البرية وقد سقانا وقد سقانا موفر ما في البرية موفر ما في البرية لا إله إلا الله موتخ يا إيه موتخ ومن أصابه ابتدع من أشربه ابتدع فمن أصابه ابتدع فمن أصابه ابتدى ومن أخطأ ضل ومن أخطأ ضل ينتي واخ لولو ما تخ ينتي بي واخ فني جورن روحي ليرو محمد ليتي ليرو سيدنا محمد كولير غلا رجل غاي دو كولير كالال رك جوليت غاي دو كوم ييفر غاي دي كوم تي ييفر غاي دي moo góor gi daan wax ni du fii fële la. moo góor gi daan wax ni du fële la. ko wax. Khalifa anhu daan wax de. ni du fële la. ni du fële la. kon fa ne kon fa sant bu baax ngi sant bu baax ñaan yàlla. di ñaan yàlla. nee di ñaan yàlla. yàlla indi jàmm jàmm. yàlla yàlla indi jàmm ji ak jàmm. fekk fi jàmm. fekk fi jàmm. jàmmal sax garab yi ak suuf seeg. jàmmal sax garab yeeg suuf seeg. dëkk beeg ndox meeg fépp rek. dëkk beeg ndox meeg fépp rek. fa tabaarakallah. fa tabaarakallah. alhamdulillah. ne alhamdulillah. sant yàlla rek. sant yàlla rek. cant mën la ñàkk. cant mënu la ñàkk. lu naqaree def la suñu réew mii nag. xam naa nag lu naqaree def la sant ci yàlla. sant ci yàlla. kenn ñemeetu ko ci réew mi. kenn ñemeetu ci réew boo sant yàlla. boo sant yàlla. ñu ne da nga ëppal. ñu ne ki dox sa sa sa borom. waaw ki dox sa digganteeg sa borom. boo ko santee. boo ko santee. ñu ni lu tax. ñu ni lu tax. waaw nooy def nag. moo nooy def nag. yonent yàlla daawuda dafa ni. nee yonent yàlla daawuda dafa ni. يا إلهي كيف أشكرك جو شكري نعمة لك نعمة لك منكم لا شكرتني منكم لا شكرتني يا داود يا داود مو يلا نان لاي بسنت لا مو يلا نان لاي دف بسنت لا نخمني ورنا لا سنت ما سنت لا نخمني ورنا لا سنت ما سنت لا خمال غان ما كو خمال ورنا لا كي سنتتي خمال غان ما كو خمال ورنا لا كي سنتتي كون نك نوما لاي سنتتي مو كون نك نوما mu ni ko bi nga xamee ne xamoo noo may sante mu ni ko bi nga xamee ni xamoo noo may sante réere gi def naa ko mu dig cant yéene ji rek réere ji rek def naa ko mu dig cant mag ñi le mag ñii yàlla fayal nu yàlla nanu yàlla fayal nu le te nuy sunu muur te nuy sunu muur waaye fa tabaarakallah waaye fa tabaarakallah yéen a ci nap lu ngeen mën nag a ngi ci nap lu ngeen mën nag lii ku ko gis lii ku ko gis mu nekkoon feeg mag ña nii mu nekkoon ca mag ña nii ak maam yaag baay ya ak maam yaag baay ya ba tey ba tey yàlla boole la ci yàlla boole la ci war nga sant yàlla bu baax war ngaa sant yàlla bu baax mais li ci dikk moom mais di ci di ci dikk nag li ciy dikk li ciy dikk ak li ñëw ci dikk ak li ñu ci dig du taxu mukk du taxu mukk waaw ne sama ma ko wax te du waxantu nag te du waxantu nag ne fa fi taxbiimi fa mawlidu bi sharafun wa yanan wa mawlidu